Bienvenue sur Salam Vision. Tá buntu baa ngi nii man ak yéen ba ci bunt kër ga teelaa leen di wante lu kenn mus gis ndax su ma téye micro rek ngeen dégg àdduna su ma téye micro rek ngeen xam ne tey jii ñu ngi buntu kër Balla Gaye 2 Sa jàkkaaroo ak Reug Reug tey dafa am boo yoo xamante ni tey jii mooy loolu fiskaay Fils kaay Fils naka mu. naka waat. su la nekk. naas bàyyi ngeen jàmm. waaw naka réew mi. ñu si jàmm mu ngi baax. waaw naka ngeen waajee sa kay ñun kay victoire rek. naram naram esaat daan ko rek ñëwaat. waaw doo xool caméra bi. <laughs> ah Reug Reug tey lan ngeen koy wax. Reug Reug. Hmm. bàyyi bañ jàpp ko rek. loolu daal ko rek. Ah. loolu daal ngeen am lu ngeen koy wax. waaw Reug Reug nee na gars bu jàppee saake da koy defal bagage. da koy blessé baa ko rek. baa ah. bañ dugg ko rek. kon baax na amal jàmm. ok nice. fis ba léegi yéen ko gis ñu ngi ci biir bu ñëwee ci biir yéen a ma gën a xam restaurant Bangok fii moom bu ngeen gisee sama biir mi ñu toog rek xam ngeen ne yàgg naa jaar ci ruq bi mais kiñ fi fekk fan yi gis nañ ko mu génn ci réseaux sociaux yi sama gars yooyu ñoo ko jëloot mu am loo xam ne da ko taataanal ci biir combat bi moo taxit ma ñëw di ko laajaat ba xam wax jooju dañ ko confirmé waat wala duñ ko confirmé waat nuyu naa la. fay naa la. bàyyi ngeen jàmm. maa ngi si jàmm fan yii génnoon nga lëmbi réseaux sociaux yi. saa kees rëgg-rëgg naka ngeen waajalee seen bopp. ah ñu ngi koy waajal yàlla may ko ndax kii muy taseel moom it xale la te am na doole man daal lu ma koy conseillé mu def ndànk mais maa ngi koy ñaanal ndax xale bu yaru la. respecté mag ñi si koñ bi respecte xale yi day nekk di foo xale yi di bëree ak ñoom maa ngi koy ñaanal daal yàlla na ko Seydina Mouhamed may ndam loolu laa koy ñaanal. tey ñu gis koñ bi bu njëkk ba combat bi mu salam koñ bi da daan fees dell tey ñu gis koñ bi xaw a nootul tuuti xaw a nootul tuuti waroon ñoom préparation combat bi ñoo ko bëggee noonu waroon na fa demee noonu. ah mais xëy na nit ñi dimanche bi nit ñi dañoo yeewagul xam nga combat moom. combat Balla Gaye ak bu Sa Thiès man bu Sa Thiès laay gën a gis nit bu Balla Gaye laay gën a gis nit ñi bari xam naa lool la rek mais du dara mais terewul ñu ngi koy jàppale daal bu baax di ko ñaanal. mais mais mais tey jii amoo leen problème comme yéen ni ngeen ko daan amee comme euh, comme bi bu lamb amee sàcc yu jugee fee coow lu jugee fee xale di dàkkante seen i doom di réer parce que gis nañu fan yi bi nga génnee tamit doon nga wax tamit lu mel noonu. xale yi nga xamante ne bu lamb ji jote wala bu lamb ji tase yan yan problème ngeen di gën a euh, jàngonteel fi waa xanaa di leen téye rek di leen jàpp ndax xale yi moom munoo fexe ba bu combat amee moom duñ génn di jubilé te dañuy ñaan sax di jubilé tey waaw. loolu daal ngeen. loolu lañ koy préparé. mais nag affaire yi nag du jeex talaaju ma la ci place bi ah añu <laughs> ah. neex. waaw añ yi moom mi ngi fi rek di neex. ndekki lépp kay lépp ngi fi. Ah. loo ñëw fekk ko fi. am nekk fi dara lu dul dëkk. <laughs> jëmm ngeen gis ni ci biir kër gi la dëkk am na nag lu mu téye ci loxo bi xaw ma nag lu mu doon dañoo mënta wax nag ci biir kër gi dañoo mënta wax nag ci buntu kër gi danoon dem ma xëcc ko nag nee ko carrément da ngay am loo xamante ne ñun ñoo la koy laaj nga tontu ñu. combat bi dayoo combat bi ba tax fi nekk nii yenn mënoo leen taxaw wax fenn mënoo leen taxaw gis kenn dama lay wax loo nag dama la ko ñaan naka ngeen préparé seen lamb ji auzu billaahi mina sheytaan maa ngi nuyu askan bi yépp di ñaan yàlla senegal jàmm yàgg fi lool waaw ñëpp am jàmm waaw bis bi ñu ngi ko préparé comme bis yëpp waaw parce que wax dëgg yàlla tàkkusaan bu nekk am nañ ko waaw bis bi moom comme bis yuñ ko préparé yuñ doon préparé rek lañ préparé ah waaw tey ñu tey ñu gis ni saakees koñ bi da nga na ñëw fekk koñ bi yëpp fees dell saakees combat bi dafa lalu làqatu ba instant yi nii may wax ak yow saakees nekku fi saakees fan la ngemboo waaw loolu yëpp euh, si waajal bi la bokk rek waaw parce que ñun moom ku ñu xam suñu lépp dal la teey ànd yar lépp si sutura waaw loolu rek la moo tax bis bi mel nii waaw. combat bi da ngeen cee nëbbatu da ngeen cee lëlu. waaw parce que bis bee ka laaj nit lépp looy def rek dafa war a ànd ak sutura te mbër bi ku ko xam xam ne nitu sutura la am yar teey dal waaw. moo tax bis bi demee nii bis boromam lay nurool. la moo tax ngeen làqatu loolu la nit ñi bëgg a xam. non non déggoo li ma la wax nit kee mel noonu jëmm jee mel noonu léppam sutura la moo tax affaire bi doon si sutura waaw moo tax affaire bi sutura wu. Hmm. ñëpp nee nañ làmb ji du yàgg waaye dina am xeex. làmb ji man nag dégg naa ci waxu nit ñi ñu naan làmb ji kat appel lay doon ñu naan làmb ji doon mu daan lay doon ñu naan mbër mi sax du ko gis. saa kees tey ji lan ngeen tey waaw xam nga nit ñi moom dañuy wax rek ku si nekk ak li ngay gis ku si nekk ak li ngay wax mais kenn mënul lu dul yàlla sunu borom yàlla sunu borom moo fi ne ñuy ñaan yàlla nag yàlla ànd ak ñun farax ñun bisu tay bi waaw di ñaanal mbër bi am jàmm xam mbër bee tamit am jàmm ñu ñëw daje xam nga bëre lu neex lu leen gars yi doon xaare xam nga Sa yàlla may ko ndam si kaw Reug Reug Salif may ko ndam si kaw Omar Kane jël bu amul benn werante loolu la ñuy ñaan yàlla tey. wala kan dafa mel ne ngeen koo xam bu baax. Khadim Ndiaye dafa am baat bu mu waxoon ne saa kees ba mu dem lekk ji xaj saa kees mu ne dafa am benn boy boo xamante ni ci koñ bi la dëkk nekk njaago nekk njaago léegi njaago bi ne ko bis boo ma daanelee rek rek ma tuub ma tuub tey ji kooku nga xamante ni tey ji wax na loolu. te yaakaar naa ni nit bu nekkee ci benn affaire bëgg a ñëw tuub ngir bëgg a nekk nitu diine kon yaakaar naa ni kooku jar na ñaanal ci lu bari man nag waxuma te du ma ne fii laa far waaye am na loo xamante ni nag duma ci yegg parce que li ma daloo laay bañ ma dalaat ma. ñu dama da sob moo tax. yàlla yàlla dafa jàpp sob moo la si yóbbee loolu yëpp. naka ngeen ma fee rek yóbbee. waaw euh, dañuy ñaan yàlla rek. waaw di santaat yàlla bu baax. waaw euh, xëy na. Père Khadim lu mu waxoon da see juum rek bëgg bu ëpp la rek waaye loolu waru ko woon comme nag Olof Njaay lu muy wax lu waay doon jaay tey lay lamb waaw tey la jour bi bis buñ doon xaar yëpp si bis bi lañ nekk nii tey. am na ñuy commenté suuf nee nañ li nga yor lan la. lii big la. am am na leneen lu weex la. Ah, non yoruma dara. ah sa saa maa toog léegi léegi. wa wane léegi dafa am jënd big la big laa yor. Ah. waaw. big laa yor. lu weex li nga yoroon léegi la mu ngi nii. sëñ foo ko dugal. non big laa yor yoruma dara. maa ngi dem sama yoon ndax man bëgguma ku ma jommal bu ngeen amee ku ngeen di jommal jommal. dañuy sant nag euh, ndaxte nit ku nekk sa dëkkuwaay nga am ak sa ak fi nga cosaanoo rawatina di sant waa géejawaay bi yëpp ay see yëpp lu ko dalee jiboo xam yaakaar. jamono diisoo baylaay ah bokk jom xam nga gonay tey njaboot gi ah amoo xam nga ASC yëpp rawatina fiñ bi déggoo xam nga manko xam nga surtout ma golf fii xam ñu ngi leen di ñaan xam ñu ñaanal sunu mbër bi yàlla may ko jàmm may ko ndam di ñaanal xam nga di ñaa di wax waa Pakaaw di nuyu waa Pakaaw surtout waa Pakaaw gis nañ seen taxawaay li ko dalee Saare Dansa. xam Saare Dansa. Saare Dansa waaw. yéenay dugg fu ne ma pël yi. Saare Dansa xam nga Karsia Jannaba Janna waaw gis naa seen taxawaay bu baax. waaw sama waa kër maam waa Dramé Kunda famille Seeku Dramé El Hadj Seeku Dramé xam di ñaanal. Euh, xam nga di wax wa Kerewan sama dëkk papa surtout ma waa Gassama Kounda waa Fati Kounda Malang Kounda euh, euh, kii Konta Kounda Cissé Kounda ah bàyyuma kenn ah Gassama Kounda ñu ngi leen di sàkku ñaan surtout ma waa Soane Soane yi Soane Kounda ah euh, tuddati Euh, Kamakunda Diobkunda Marandang Wudukaar xam nga euh, Mankonomba euh, Sakar ah waa kër Keba Dramé sama maam jooju yàlla na ko yàlla yokk ay leeram ah waa waa waa waa Sitaba waa waa Bunkiling waa Malifara waa Sédhiou ah Fuladu Kolda ah baa ñu kenn Bignona ah surtout Médina Souane kër Ba Karamba ñu ngi leen di sàkku ñaan bu baax waaw surtout nag euh, Kerewaan waa Touré Kunda sama ñoon nijaay waaw ñu ngi leen di sàkku ñaan. sa waay yéen xanaa yéen yéen yéen fi ngeen dugal rek nag waa Saare Tumaani tamit xam nga waaw waa Saare Tumaani waa Saare Fariñ waaw ñu ngi leen di sàkku ñaan bu baax di leen nuyu bu baax waaw ñu ñaanal Salif Sakho yàlla may ko ndam si kaw Omar Kane waaw. lu waaye doon wax nag tey lay lamb. tey lay lamb tey ñu ngi si bis bi. parce que daal wóor ngeen seen bopp. bu baax. du ngeen ci biir kër ma ne entraîné na mu ngi si a salaam mbër bi macha allah xel dal na. dëkk yim lim yëpp yaakaar naa ne ku ci nekk boo téye benn kuréel saf ko Reug Reug gëm naa ne est-ce que Reug fa jaaree sax bëreet du samay wax waxam la sama gars yi man ak yéen ba buntu estat war leen saa ku ne ma baal la dégg ne ku ne ma ngi maa lay fay. maa ngi am sant yàlla. Koungheul gars yi nee nañ. làmb ji yéen du ngeen am dara. waaw saaga yàqam day xeex la. xam nga nit moom sooy wax lu ñëwagul moom. da ngay sonal sa bopp rek. luy xew ngoon moom yàllaa xam. ñun munuñu xamuñu yàllaa xam. en tout cas daal suñu mbër pare na entraîné na wóolu na boppam ñu ngi ñaan yàlla yàlla yóbbuñu si bis bi. yaa ngi dégg bis bi sax ñëw na di ci heure bi laa bëggoon wax ay minutes moo si des yàlla yóbbuñu si jàmm. yàlla may ñu ndam yaa ngi rek bu sedd guy bu kenn manqué ñëpp nañ fi nekk ba heure bi jot incha allahu rabbi saa kees yàlla may ko ndam ñu feetu parce que yàlla nit nag amoo lu dul ñaan yàlla yàlla mooy maye waaye soo waxee lii mooy am par force Yékini lii la doon wax ni lii la doon def Balla amul ci kaw ba suuf mbindeef bu may tere def lu mu bëgg a def Balla Gaye yàlla ne ko nag kaay ma wala sam bopp yàlla moom booy boo koy booy fëgg dënn mu woo la soo ñaanee mu may la ñun ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ndam bu sedd guy ñu ñëw feetewaat ko si jàmm xaar yeneen combat yi yàlla ma ñu ndam di sant Balla Gaye dee bu baax a baax di sant ñëpp di sant fans club yi fan saaxu famille yu nekk Casamance Gambie ñoom ñëpp Casamance Malifara Bignona Sédhiou Pagaaw ñëpp ñu ngi leen di sant Gambie di sant waa golf nga xam ne fii leen dëkk fii leen dëkk golf xale yu ndaw mag ñëpp ba Baye Fall yi ñoom ñëpp dañoo jënd seen i t jënd seen banderole di supporter Sa Thiès lu ko may parce que Sa Thiès da woon yar woon leen tëggin woon leen ñëpp moo tax tey Sa seen bisam bi ñëpp tey ñu ngi koy ñaanal da ngay romb ay passant ñu naan la Sa Thiès yàlla ko yàlla may ndam lan moo def loolu parce que da leen di romb yëg leen yaa ngi dégg respecté leen moo tax gars yi di ko ñaanal ndam Balla Gaye tamit di magam ku baax la ku yaru la xam na boppam am na yëg-yëg ci nit moom tamit ñu ngi koy ñaanal combat bu mu jib si yàlla may si ndam. Xadim Ndiaye nee na. waaw Ndiaye nee na. Sa Thiès bu daanee rek day lekk. waaw xam nga loolu. Sa bu daanee rek mu nekk xaj. kon bu soobee yàlla dina nekk xaj parce que Xadim Ndiaye du ñun lay waxal. Xadim Ndiaye instant yi yàlla lay waxal. te yàlla dina ko woon boppam. du xaj la bëgg a nekk. bu soobee yàlla ngoon dina nekk xaj. ci kàttanu yàlla suñu borom. Xadim Ndiaye du yàlla. Xaadim Njaay du yonente Xaadim Njaay nit kese la comme ñun ñii kon na yem moom fii lañ ko dóor solam ko suuf ba bët bi yëpp am suuf combat am bi ñu koy fàttaliku. kaka kaka moo ko defoon naa am na benn mbër bu ko defoon loolu jàpp ko jël ay suuf def ko ci bët yi ba mu teex. am na ñuy commentaire fii nee na nee na Xaadim Njaay la. ah nee na na Xaadim Njaay ko defoon suuf non Xaadim Njaay du Xaadim Njaay nga wax nag. waaw Xaadim Njaay di ma jot de. waaw kooku nag am na benn combat xaw ma moo def moo deful en tout daal. ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ yàlla may ndam foofu lañ yem incha allah dina nekk xaj du nekk xaj la bëgg dina nekk sax pitbull mooy xaj yu mu gën a ngande yi bu soobee yàlla loolu lay nekk bu mu yàqamti gën a pitbull gën a moom lay nekk ngoon ki mooy kutul bu bala ngay dé ki nañ leen yéen nga xam ne yéen seen liggéey ngeen di def yàlla na yàlla def ngeen am ay tele télé télé télé yu bëri parce que ay jeunes ngeen da ngeen di liggéey lu ngeen di def ni yombul yalla na yàlla lu ngeen bëgg si àdduna yàlla na ko yàlla may yaa ngi dégg adduna moom dara dara yàggu fi dara méttiwul soo muñee zen nga yàlla dina la may yàlla buggul kuy yàqam di dégg nga di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm Aziz Ala Ndiaye di gërëm Masata Baye Ala Ndiaye ñoom ñëpp ñu leen di sant famille Ala Ndiaye yëpp gërëm nañ leen sant nañ leen gis nañ seen taxawaay si combat bi combat bi moo ñor lu ñu jooyoon si booy ñaa yëpp tey lañ ko bëgg a tey kontaanee ko tey te saa ah bul comparé la lu ñu jooyoon foofu noonu Sa Thiès tey dina fomp rongo parce que géejawaay yaa ngi rek déglu ma rek ma xaaral bu yàkkam ni may ma su après nga wax waaw Reug Reug incha du daan Sa Thiès ci kattanu yàlla xaar ma may waa ji mu wax parce que instant yi waa géejawaay seen yaram yëpp a tànk waa géejawaay seen seen seen yaram yëpp a tànk sa dafa am baat bu wax léegi léegi nga daal di siif daal di dugg loo wax nga ni. ma ne combat bi combat capital la teg ba jeexal la. amul ay booy ñaa booy ñaa paase na ñun rëg-rëg la ñuy waxuñu ay booy ñaa rëg-rëg nag bëre bëre bëre bi muy bëree du bëre bu mën a yëngal Sa Thiès quoi franchement. yow laa nga gis man gëwuma rëg-rëg daan Sa Thiès wax dëgg yàlla. nga ne nga ne gëmoo. gëwuma rëg-rëg daan Sa man gëwuma loolu. xarit Ndiaye taxaw fii daan ne Sa Thiès gars bu daan ne rëg-rëg gars mu dem ne xaj. wallaahi wallaahi kon dina lekk xaj. léegi tàkkusaan jot incha allah combat bi yàggatul. kon dina ko lekk. waaw dina lekk xaj. waa jooju di wax quoi bugguma tudd tur waa jooju noonu di wax. parce que tur mais Xaadim Njaay ko wax Xaadim Njaay ko wax dañ koy mais waa jooju bugguma tudd tur parce que murit laa taalib Sëñ Tuubaa la. parce que tur bee sell. tur bee sell. yàlla ko ci tur bi. waaw mais kooku waxkat la bàyyi ko rek muy wax mais xam naa ne làmb ji Sa Thiès ko perte loolu lu ma leer la li may. lépp nee nañ Sa Thiès ngeen boowul Dakar Sa la ne. waaye Sa Thiès dakaar Thiès Dakar gi la mi ngi ci dëkk bi demul fenn sax. mais nekkul këram. waaye Sa Thiès amul jotu génn sax combat bi day laqatu rek combat yi am na am na yenn combat yoo xam ne day laaj doxuñu. combat bi combat capital la du combat bu ñu war a perte tey barke Serigne Bamba te Sa Thiès du perte combat bi. yàlla na yàlla yàlla nañu yàlla may ndam. yàlla na yàlla ndam rek la ñuy ñaan quoi nuñ ko amee baax na mais Reug Reug bu soobee yàlla tey dina tëdd. c'est la première fois ma dégg wax jooju maa dem saa maa ngi lay ziar ñu ngi ziar bu baax naka ñu ngi sant bu baax saa ti sa saa nga sol de waaw xam nga ta saa saa hmm. moo ñuy jaral yëpp quoi parce que ñun famille Double Less rek leen dëkk mais Medina Medina la ñuy liggéey quoi Medina ngeen liggéey waaw mais mais waa ko Double Less ñoom ñooy seen xale ba léegi ñoom la ñuy topp ku ñu xam-xamee si Mass Balla Gaye Mass Balla ak sama. waaw ah, yow yaay Mass Balla Gaye may dégg. Eh, man la man la Mass Balla Gaye la xam nga. waaye yéen Mass Balla dégg ni yow fu ne laa koy dégg mais Mass mosuma koo gis Mass rajo mu woote télévision mu woote xuloo ak saakees mu jël combat ba téye ko xuloo ak Balla Gaye mu jël combat ba téye ko Mass gannaaw boobu la waaw comme nga bëgg ma présenter sa bopp ba pare Mass a ngi nii yéen waaye tey la réew mi di toj Mass Mass saakees combat bii nii nii nii ak kon bu tey ji ni mel ñëpp taxaw. na saakees ngeen boobu fii saakees dugg na ci àll bi te combat bi li ci des ci ay waxtu bareetut koñ bi kenn gisul fan la saakees nekk combat bi naka ngeen ko gisee. bés bi moo ko moo ko waral quoi parce que combat boo xam ne ne combat capital boo xam ne ne tey da nga soxla parce que saa ñu war a bëri du ñii quoi en fait mu ngi war a bëri ay ñoom tafatin ñoom bombardier ñi si kaw quoi mais tey lu mën da ñàkk foog mu am quoi mais gan gi da nga ko war a faxas tey dem yëg si kaw quoi. loolu moo waral tey Saale pour ñu da gis beneen Sa bu doy waar tey. Mm. lu leer nañ ñi laa wax. Xaadim Ndiaye nee na Sa bu daan rëg-rëg mu lekk xaj. waaw Xaadim Ndiaye moom nee na bu Sa Thiès daan mu lekk xaj waaye moom damay koy wax pour encore ëllëg mu odd waxam quoi parce que moom mag la référence la na mën a xam ne carrément àdduna nit ñëpp koy déglu kon na wax wax ju rafet. parce que Sa amul mbër buy takk làmb takk ngemb si làmb yi ku mënta daan amul parce que am na physique bi am na doole bi mën na bëre xale la lépp lépp lépp mën na ko wallahi laazim ku dul rëg la mën na koo daan kon kon bu mu wax ne kam su Sa Thiès daanee rëg la mu lekk xaj kon kon xam naa tey de xaj yi moom tey de <laughs> dana nan daw si. nga ne non xaj yi nan daw laa nan daw boo bëgg a dee laa. bon su Balla Gaye dégg li mu wax Fall maa lay bu baax a baax. naka waay sant bu baax. Fall yéen dafa mel ne yéen a ote su non ñun dañoo pare ci lépp. waaw oh. dara waralu ko lu dul Saliou. waaw Saliou wax dëgg yàlla kenn mën na ko fay ñun ba ñu ñun dipp ñu xam làmb ba léegi Saliou waa Kër Doubalès moo tax ñu xam làmb ñun mënuñu dem saa ñoom te bu ñuy suivre làmb ñoom ñoo tax vraiment ñun ñu ngi jógee man maa kii mu ngi dëkk ba Kaolack man maa ngi dëkk ba Malem Odar ginnaaw Kaffrine. ginnaaw na ko moom rek moom rek moo ma jaral may déplacé mag sax dama ko xoolaan ñu bëri dañ ma koy wax xamee nañ ma ko yàlla xam na ko léegi ma débarré Kaffrine laa débarré ñu ne ma foo jëm maa ne lamb ji laay xoolaane ñu bëri dañoo téye seen gémmiñ ñu ne waaye def ma liggéey maa leen liggéeyu ma seega Saliou daf ko jar ku dul Saliou xoola du ma déplacé met mais ma jaral may déplacé di xoolaane sport parce que sëñ Saliou mm. waaw tey jii la la la ngeen di conseillé Sadio. Sadio Sadio Sadio duñ ko conseillé Sadio xam na li mu war a def waaw koo xam ne nii moom Sadio Sadio mu loolu noonu Sadio moom kenn ko conseillé c'est que ko boo ko conseillé tamit moom bu ñëwee moom yaa ma gën a xam day def li ko war rek dem ñibbi. c'est que du tardel kenn man loolu moo ma neex ci Saliou Saliou du tardel supporteram vraiment. Sadio dañoo gis mu jël film ci combat bi. non Sadio Sadio Sadio combat bi lu mu laaj dañ koy def wóor na yàlla c'est que instant bi moom moom rek la ñuy xaar. waaw nee na daal du leen may dara Reug bu ñu mayul dara ñun tamit duñ ko may dara rek oh. waaw loolu la rek oh. bëgguñ mu may ñu dara ñun tamit duñ ko may dara vraiment loolu loolu laa ngeen gis waaw loolu lañ gis te loolu mooy am incha allah mas nga ni dafa siñete liirut kanaa doo xool wii eh, eh, eh, ma mas wii ma loolu wii ma loolu loolu soo la non dafa siñete xool c'est que jàngul dara xamul dara di woo waa Kaolack yëpp xoola waa Medina Baye waa kër Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñun foofu leen bokk quoi xam nga di woo ñoom Pape dawakati Jakarta yëpp yu nekk Kaolack yëpp xam nga am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi si yoon bi di ñëw ngir Sathies xam nga ñun waa si ginnaaw ko Double Less ñun ñoom rek la ñu topp wallaay buñ bàyyoon làmb rek léegi tey instant ñu féex quoi wallaay laa si ñoom rek la topp di ñaan yàlla ndam nag mas nga ko nee na ñoom te ñoom rek la ñuy àndal ñoom ñaar bu ñu bàyyi lamb rek waa kër Double Less rek ñoom ñoom ñu féex bàyyi làmb kon yaakaar naa nit ki ki la bëgg rek mooy ki la sonal Sa Thiès ñi la bëgg ngi nii Sa ñi lay ñaanal ndam a ngi nii Sa Thiès ñi lay sant di la gërëm a ngi nii Sa Thiès ñii ñoo yëkkati seen i xaalis jënd seen i tisat jël seen xaalis dem ba esat jël seen xaalis dagg biir toog di la seetaan kon yaakaar naa ne joo jooju doonul lu yomb Mass bëgg naa la sama waa ji bëgg naa la li Omar li ci des nag raw di maa ngi yéen fii ak yéen man ak yéen ba bu ndi sax man ak yéen ba ak yéen ba prix lamb de jeex. <laughs> waa groupe Rebeuss la nekk nii groupe Rebeuss. waaw léegi nag groupe Rebeuss bi nee na tey bu su laabulee tey du ngeen am dara. waaw faa man jaam bu baax. naka waay. waaw moo ngi nii rek. te daal da ngeen quoi tey gars yi di ruubee toog ci ruq di waajal sa lamb. waaw tey jii lan ngeen koy waajalee tey combat bi. tey dañoo waajal victoire bu garaaw boo xamante ne Reug du ko gëmee. bilaa walaay Bamba lu garaaw. Reug Reug tey dina xam lu ko benke ñenge wu ko. barki yàlla bilaa walaay lu muy def tubaab du ko def ni ku ñuul de. lu ah. garaaw laa la fa demee nag borom mm. karamam bu rëy boobu doo day li tax loolu yàlla moo du ñu daan. Eh, eh, yow yaa dàq rek la. waaye man ñoo ko dàq foofu ñu laay kaawaja bu mu yor. waaw bu baawul bu baawul kii nii seen i yàqu yàqu jën dina dee de. bu baawul seen i eh, yàqu. yow loolu di lekk ay millions. waaw ban million di lekk ay yàqu. yow xanaa gisoo gémmañu ya. kii ne waaye doom bàyyi. nga ni dégg muñal wala alxuraan keneen tey dégg muñal. muñal. tey rëy yow day dégg mu ñëw. day dégg mu ñëw par force. day dégg mu moo doon libéré sama gaale jën ay sept heures maa bi yor keesam waaw doo ma bàyyi moo doon libéré sama gaale jën yor keesam di jaay ay sombaat moo kii dina ma daan kuy jaay sombaat dina ma daan. mais voilà mais mais dama gisee benn affaire benn affaire bu garaaw tey laa gis mooy Sa Thiès tey ngémboowul golf golf boo yi foo tourné ñee ñu ngi teg seen caayan di happiness ñee nekk ci leneen yéen tey confiance bi ngeen am tey ji ci combat Sa ak Reug tey lan la booy yéen ñi nga xamante ne yéen yéen ay ànd ak mbër ay mbir la li tax ngémbow fi ay mbir la daa am lu ñuy saaxatu rek bàcc Sëriñ Bamba mais mooy loolu mais li ngeen di saaxatu xaw xawaa wata feeñ dina feeñ ay mbir la timisment dina feeñ arbitre bu sifflé nga gis lu garaaw barki Sëriñ li nga waxoon waxoon naa la ko de. Xadim Ndiaye nee na nga sa kees bu daan doon rek day lekk. day lekk ay waxam la rek. doomu mbaam kon dina lekk mbaam bi laa walaay. Eh, waxu mbaam de xaj la wax. waaw kon dina nga lekk. dina nga lekk de. na lekk muus. na lekk muus. dina ma daan jaakatu den boobu dina ma daan. duma eh, eh, musul dégg muñal waaye muñal dina ko dégg tey rek tey tey lépp dina xew biir arène nationale parce que Serigne Bamba lu garaaw maa lay wax lu maa ngi nii nag jërëm arène nationale waaw wan leen li nga xamante ne Sa Thiès tey jii moom la war a dugg see tey jii ci biir làmb ji sama réalisateur ñii nag ñooy waa gi waa rëbës bu ngeen déggee waa rëbës nag mooy waa bi nii waa mata gi tey rëlët dina mel ni waxalu Bambir jërëm tey ma lay la rëg rëg rëg rek barki Serigne Bamba lii dafa fees maa lay wax lu garaaw billaay walaay. sama rëg rek maa ngay daw maa ngay daw dee naa leen fii mooy wax ak ci